kon incha allah dinañu plaidel Cambérène bu ma fi jógee léegi stade bi nga wax dinañ leen ko ñaanal président de la République te am naa yaakaar bu wér li ma xamee président de la République bu ñu ko joxee argument yi ci war nañ ko defee woon Parcelles Assainies gëm naa ni balaa stade Parcelles Assainies bi di commencé dinañu commencé xale yi. bu fi dee ñëw wala bu fi bu fi yónni keneen incha allah dana wax fu ñuy jaar ba defar loolu bu boobaa ñu nit ci cër bi mu ñu dénk xam nañu fi ñuy jaar incha allah am nañu yaakaar loolu bu président ñëwee buñ ko ko waxee réponse biñ ci am ce sera une réponse positive wax nañu aussi nañu gën a jàppale commune bi incha allah danañ la boole ñi ñu la war a boole pour ñu jàppale commune bi parce que actuellement y a des difficultés xam nañ ko ñu jëm nag ci élection sëriñ bi wax na ko léegi teg ci dara dafay jafe Moustapha Cissé Lo maa ngi koy nuyu dëgg la ni mu ko waxee noonu la demee juróomi candidat la ñu am juróom kenn ki def nañu gis kon tey ñëpp mën nañu ko jugé amul lenn lu président Macky Sall waxoon bi mu wut réew mi waxoog askan bi te jéemu ci lu xam ni nit ñi mën nañ ci teg seen loxo amul def nag yëpp mot kooku yàlla rek ko mën waaye amul lenn loo xam ni waxoon na ko jéemu ko ba def ci loo xam ni ku nekk mën nga cee teg sa loxo ñi ci des kenn ki de man xam naa ko service sax mosuñu ko jox keneen ki nekk na premier ministre mën ngeen a àtte ndax jamono jooju réew mi dox na wala doxul xam nañ ni daal chantier de Thiès yi ba tey ñi ci des mosuñoo gis liñ def réew mu day ni Sénégal waxuma sax waxuma sax réew mu day ni Sénégal waaye réew doo yëfu caaxaan na fi jamono toll démocratie nag moo maye ku mu neex laaj waaye nit ñi war nañu am fulla bu day nii donte may ku nekk droit lu la neex laaj nit ñi am fulla bu day nii koo xam ne da laaj te waroon laaj ñu ne la toogal te ni ngeen ni ñu mën a toogloo nit ñi mooy bañ leen jox benn carte kenn mun leen tere laaj nag laaj nag moom c'est normal démocratie moo bindoo noonu mais buñ la joxulee carte bu boobaa di nga xam ni waroo laaj histoire u Sénégal boo ko xoolee bu baax ñi waru woon laaj bi ñu laajee daaw ñu leen jox benn carte gisee ni ki fi nekk lépp lu ñu mës a moom def na ko tubaab yi ak président Macky fi ñu toll léegi mooy dañuy wax président Macky Sall doo ñu gën a gore bugguñu Sénégal tardé benn bés waaw ñi nekk bitim réew bu ñu buggul Sénégal tànn benn bés ñun ñi moom senegal ñun ñi dëkk Sénégal ñun ñi nga xam ne amuñu leneen lu dul Sénégal war nañoo nangu Sénégal tànn kon nag bu ñu kenn nax bi ñuy wax DER président essayé na yu bari ñi fi nekkoon jiitu ko essayé na ñu bari bi mu ko gëstoo bëgg a soxla nañ def nangam. def ci trente milliards amul amul ci Sénégal projet boo xam ni ci at bi génne nañ ci trent milliards guléet ci DER mais li président bëgg a wane foofu mooy dafa fonk jigéen ñi dafa fonk xale yi dafa am ci ñoom yërmande fi mu nekk nii mi ngi wax nañ dolli mais nañ ko defee rafet na rafetaay boo xam ni fi mu nekk bitim réew nangu nañ ci dugal seen loxo ay ñun suñu bopp danañ ci def lu ñu mën dinaa leen di demal ci première dame waaw oh, dinaa leen fa fi jógee léegi dinaa war dinaa défendre dossier bi dinaa fexe ci nu mu gën a gaawee ou mu ñëw fi ou mu recevoir ci une délégation représentative bu boobaa aussi dinaa ci wax sëriñ bi parce que bëgguma dugg ci kër jàmbur def fa sa naka du dul noonu ndax ñëpp suñu njaboot lañ ñëpp nag ñëpp ku far fii ku far fële ku bokk APR ku bokkul APR amuñu problème yooyu dinaa waxtaan ak moom waxtaan ak kilifa bi ñu wut une délégation représentative mais sama kàddu dina leen fa jiitu léegi ci guddi gi bu boobaa moom bu ngeen ko gisee moom nag moo ñu gën a gaaw kon maa ngi leen di sant di leen gërëm wax ngeen fi aussi marché bi ça je verrai avec le maire vraiment dina gisee maire bi ndax am na foo xam ni bu fa tolluwul mën nañu xool ni koy jàppale pour mu mën ko def assez assez rapidement à travers le ministère de la bonne gouvernance ñoom mën nañu leen jàppale comme niñ leen di jàppale kon sëriñ bi duñ la retenir ñu ngi lay féliciter ñu ngi lay masawu di rafetlu sa engagement président yàgg nañu wax président nag kenn du ko gën a gore ñu ngi xool ñu nag waa Cambérène nan la ñuy organiser te il faut que peut-être le maire Moussa ak Cambérène jéem xool nu ñuy développer l'intercommunalité ça c'est important c'est-à-dire que ñu commencé ko entre Cambérène ak Parcelles Assainies jéem a xool yan projet la mën a bokk yan projet la ñu mën a defandoo ensemble ñun peut-être ñu jàppale leen ñu koy structuré parce que am nañu ay services yoo xam ne mën nañu liggéey ci loolu wan leen ni dispensaire bi wala hôpital bi walla marché bi wala école bi wala lycée bi en fait lépp loo xam ne war na mën a jariñ population yi ñu xool ni ñu koy organiser autour des deux communes ba nga xam ni dinañ mën a bokk leen et ça ça va régler l'autre problème mooy Cambérène 1 Cambérène d dëkk bu nekk dafa am particularité